ni diggante Idrissa ak ñun jar seetaan ndax dama jàpp ni bu ñu la joxee dëkk boo demee ba wàcc war nga yow sa njaboot wala képp ku la bëgg bu rombee ni lii day sama waajee ko fi defal ndax loolu moo tax ngeen fal mi démb wax naa ci benn rajo ma ni dafa am journaliste bind fan yële mu ni lu tax maire commune yi du ñu def audience publique ma ne ko tu mu tey ci date bii ñu toll ba le 31 décembre audience bi ñuy def mooy présentation réalisation yu commune Thiès Ouest def je crois boo woowee askan bi ne leen bëgg naa bëgg naa benn moment da ngay arrêté ne leen leen bëgg la ma bëggoon a ngi nii dama toog fii rek léegi ci wetu préfet li may wax euh, suma frère Pascal mën na ko seede ni brièvement du audience publique mais dinaa présenter nit ñi brièvement ci li ma toog fii rek maa ko bind ak sama loxo big baa ngi nii ne lii moom fu ngeen ko romb ci dëkk bi xam leen ne ba ñu àndee ak sa ñëw ci yéen mu ne ànd defar Thiès ba ñu ko dénkee li lañ fi liggéey te suñu toogoon bureau incha allah fii ak décembre population yëpp dinañ jot wala ñu liir wala ñu gis ci réseau yi wala ci télévision yi ñu dajale leen ne leen ñu ñaari at yi ñu fi def naam lii def nañ ko fi ndax mandat jàpp naa ne buy jeex. boo ñëwee ci population yi da nga leen war a wax ba nga ma joxee def naa lii est-ce que war ngeen ma dénkaat mais joxoon ngeen ma damaa bëgg ngeen joxaat ma dañ war nañ laaj loo fi def mais boo fi deful dara war ngaa mën a jomb dem di tëgg ci ko ñi sabar Pape Diop mii ñëw sama bureau ne ma monsieur le maire loo mën a def fexeel ba sa empreinte des ci commune bi mu ngi nii lu divergence am am ci lu mu mën a nekk ci beneen association daf may woon toujours tu es un Mansour Gueye moom waxaale poste de santé Mbour 1 bi benn la ci maternité Grand Thiès dañu bëgg lu ñu wax rek bu fa nit bu am nit amee jot dem seeti ko wala bu ko rombee xam ne lii ñoom la maternité Grand Thiès ak maternité bii rek benn audience publique nga wax ne boo woowee nit ñi ne maa ko fi def ñu tàccu la muy benn benn audience nga réfection établissement scolaire yi dañoo waxoon at bu ne dañuy ne ñaar fii may wax ak yéen je crois ñu ngi ci cinquième établissement scolaire Mbour 2 benn la ci dem leen ci bureau directeur bi Grand Thiès noonu feneen noonu fu ngeen ci dem gis travaux c' est par la commune Thiès Ouest et sur fonds propres dama bëgg mu leer dërëm bi ñu jëlee ci askan bi la ñu delloo ci askan bi. deux centres d' état civil secondaire benn baa ngi Normandie benn baa ngi dixième loolu lu ñuy wax. place bu Concorde mu ngi nii. Normandie waxuñu ko parcours sportif dixième ak Sénélec lu ngeen ci romb rek xam leen ni seen maire moo ko def seen mairie ñoo ko def seen conseil municipal ñoo ko décidé don d'ambulance lii rek jar na benn jar na euh, audience publique woo nit ñi rek ñeneen ambulance yaa ngi dama wax ambulance bi mébét bi lu ko indi dama toog ma ni man déjà li ñu commencé woon mooy li nekkoon fii avant maternité bi ñu toog ma ne leen am na ñuy toog fii def ko grand place naam si du bonul mais toog ci ginnaaw salle d'accouchement jigéen di accoucher di yuuxu nga koy dégg dérangé wu la ñun autorités yi ñoo ci war a jël décision même bu dee frustré ay nit dafa war a deñ ñu jël dindi ko fii some ñaari yoon ñetti yoon nekkee de bi yeggul suñu ay kilifa yu baax yu fii toog ñu ñëw dindi ko ñu ñëw toog sama bureau ma expliqué leen suñu papa yi fi nekkoon ñu ne ñu monsieur le maire lii boo ko waxul ci ñun xam nañ ne warul nekk pour wax la lu baax boo ko yëkkatee ñëpp jàpp ci ñu dindi ko ñu ni jàpp nañ ni nit waratul mën a dem hôpital di accoucher ji wala ngay dem fenn ñu lay dugal ci ay Renault 19 sa jëkkër ak yeneen loolu lañ ne normalul ma proposé ko chef d'entreprise yi nekk Sénégal yëpp bind naa leen lettre lettre yaa ngi fi ne leen ñun normalul suñu L200 bii di jël néew di yóbbu Touba di accidenté Thiès région amul corbillard ñu ne c'est pas normal ñu ne yooyu mooy population yi soxla nañ ci taxaw association bi nga xam ne ci laa bokk bokk ci membre fondateur yi muy UCEFT yor école football yëpp te tey ñoom ñii entraîneurs yi toog yàlla def man maa nekk ci bopp kuréel gi nekk président képp kuy entraîneur wala ngay jàngale football fii ci Thiès nekk premier vice président au niveau national ñu toog final bi am ma toog a soxla si wax ko mu ne monsieur le maire voilà un projet que les Africains doivent faire ma ne ko man de jàpp naa ne jigéen buy accouché te numéro vert war na laa mën a yóbbu sa biir kër nga woote mairie déplacé ambulance yóbbu la ambulance bi fu mu taxaw ñu ne ah lii daal la ñu ne commune ci espèce ñu ne vraiment mairie bi amal nañu njëriñ moo gën juróomi téeméer rek ñetti junniy jël di ko teg ci loxo nit ñi te amul njëriñ c'était ça l'idée tubaab bi dem jàpp ci association euh, ñi nekk Sénégal opérateur yi wax naa ko fii nit ñi mer benn réponse laa ci am muy transport Amadou Dieye ci affaire corbillard ñu jël ci engagement ma toog ci télévision yi wax ko mais jàpp nañ ñi du lu extraordinaire damay wax lu tax pour pour pour pour mu bañ a gudd Sonatel mënul nekk suñu biir commune numéro vert di ñu të groupement sapeur pompier mënu fi nekk ay ambulancier di ñu të croix rouge mënu fi nekk personnel de santé di ñu të mais bu ñu oto war ngaa mën toog sa kër woote ñu transféré mag mu am 80 ans yóbbu ko hôpital te waru cee mën a fay dara parce que carburant bi mairie war na koo mën a jël en charge même bu dee ci cabinet maire ñaanuñu yàlla transfert yi bëri mais même su doon 1000 transferts dans l'année ah même si c'était 3 3 euh, litres ça fait 3000 loolu bu ko mairie deful sax ñeneen ñi def looloo fi indi ambulance yi le médecin chef de district ne ma monsieur le maire ça loolu ab SAMU la te SAMU municipal dafa am norme yu muy répondre mais dinaa la jàppale mu taxaw. mais comme ambulance yi mënta taxaw nañu fexe lu muy polariser poste de santé yi ñu ne Thiès noonu bu ñu ko fa defee mu jël yi nekk zone bi bi nekk Grand Thiès jël yi nekk zone bi ku ci am malade wala dara mun koo transférer te ñaanuñu yàlla li ñuy ñaan yàlla mooy su pexe yi sottee poste de santé bu ne taal sa ambulance yóbbul sa nit sa te mën na nekk bu ci ñëpp jàppee fii am nañu yàlla baaxee ñoo xam ne jënd ambulance bi dara ci ñoom nañu ni partenariat bi warul tubaab bu yëkkati jox ñu dafa war a commencé suñu biir ñi bari dimbali ñu néew leen loolu la diine santaane loolu la même législateur bi wax loolu moo fi indi ambulance donc esprit bi ñu xam ni loolu la euh, jamono yële passé woote nañ fii ci pour préfet parce que suñu école yi ak poste santé dañ doon coupé courant coupure bu metti ñu ne leen dafa war a dindi même bu compétence bi dul ñun xale yi suñuy doom lañ ñu doom à chaque. Euh, poste de santé ak école dinañ participer ci facture bi même bu dul suñu compétence mais dañ ko war a def 4 millions à distribuer à aux établissements scolaires et aux postes de santé établissement scolaire yi seeni postes dem na jël nañ ko bu yàgg poste santé dafa amee réglage yu ñu doon xaar pour seet ñoom est-ce bu ñu ko fayee day continuer ou état da leen di fayeekuwaat ay facture bari loolu moo ko fa tee dotation de fourniture à tous les établissements depuis ñu nekk fi on établissement yëpp nag même même les établissements franco-arabes ak yëpp seen dotation fourniture scolaire te avant ñuy ñëw ci école publique yi kese la yemoon mais tey ñi fi nekk yoon établissement franco-arabe ak yëpp mën nañu attester que loolu dem na. social moom y a pas à dire c'est à chaque on affiche fii lépp lu ñu war a dimbalee nit mu leer nañ et je parle sous le contrôle du receveur. extension réseau route de Dakar 1 ñu ngi nii. bi ma ñëwee ñu ne monsieur le maire dañu am problème bu kii ma ne leen du suñu compétence mais préfet newoon na ma ku nekk mën am na noo tojee sa bopp jinax bërki démb bi waxeen courant bi wàcc na foofu on a mis les poteaux extension sur 600 mètres ba pare courant bi wàcc na fa bërki fii route de Dakar 1 ku fa dem def vérification réfection mosquée yi quand on a reçu les lettres on a dit que c'est normal lieu de culte yu jël xaalis bu takku di ko ci def le président de la commission religieuse est là du ay jàkk mais ñi fi def ñoom xam nañ li ñu def la construction mosquée gare routière c'est dans le cadre de la co coopération ñun ñoo ko tabax avec des saoudiens le président de la commission est là construction des toilettes marché Grand Thiès vieille doléance c'est réalisé hangar marché hangar gare routière on avait dit que suñ ko defar femmes yi togg ci wetu oto yi gaz yi mën na constituer ay danger et njiit da nga war di prévoir ku fa dem tey hangar bi je crois ñu ngi koy zenge Mbour 2 bi plus hangar bi bi faa bi di jox même chose hangar Mbour 2 jàkkee Tukulóor le canal plus de 15 ans bu tawee jàkkee Tukulóor kenn du fa jullee bu tawee léegi 10 minutes nga génn parce que dañoo doon mairie mënut a defar canal et on a pu faire le canal sur fonds propres réalisé ko ba tamit su tawee du ñu génn julli juuti bi mu nekk vieille doléance gare bu waa gare routière booy génn Thiès fi angaaru fa bi nekk non seulement def nañ fa angaar mais tabax nañ fa juuti tabax fa poste police boo xam ne inauguré guñ ko donc mois bi yëpp on va procéder à des inaugurations wan nit ñi ne lii la ñu def lii ngeen ñu santoon lii fii lañ toog rek bind ko et beaucoup de réalisations yoo xam ne la presse dina dem ak Thiès waaye ne leen lii lañ leen santoon lii la ñu def li ñuy ñaan nag pour terminer ça a été long mais ñu xam est-ce que li ñu santoon suñu maire mu ngi ci walla nekku ci jotu tontu nag laa amul pour ñu bañ problème yu bari yu ñuy dégg dama ne jotu tontu laa amul mënuñu ma dégg quatre-vingt-trois mille am seen santé seen éducation doom seen sécurité seen lépp ma nekk fi du bu yàlla demee ba fay wax bàyyi jëf nit ñi arrêté li ñuy def jëf lañ ñu sant ñu ngi ci jëf Et Inch'Allah, ce mandat de guerre, on va vous présenter un bilan et vous allez juger à partir de ce bilan, est-ce que mérite leen dellu si fii wala mérite wuñ fi dellu si loolu laa ne woon dinaa ko fi wax di gërëm ñi fi ñëw ñëpp di wax ni am na projet bu am fii parce que mbubboo yi moo bëri il foo ñu leeral am na quartier yu nekk Thiès fii Thiès ouest tey jii ñaanuñu ko yàlla ñun ñii ci ay famille polygame la ñu bokk tey jii dañuy suñu papa yi dañuy génn àdduna suñu kër yi am problème parce que kër yi amuñu ay këyit j'ai proposé au préfet mu ngi nii toog ma wax ko ne ko conseil laa bëgg ci Sidi Ousmane Ngom ci Thiès noon ci euh, euh, euh, route de Dakar 1 ci SAPCO ci Mbourkat pour que ñii ñi fexe balaa ñu fiy jóge ñu valider seen kër yi jox leen ko ñu dem fay perception am seen i këyitu kër te bi ñuy cité cité Ousmane Ngom lañ njëkk a signé si si kii lañ njëkk a cité nit waratul dëkk ci kër di génn àdduna bàyyi koog say doom te amul këyit. lii ay chantier la yu ñu yëkkati incha allah ak préfet dinañ ci yegg ba ci fond bi su yeggul nag ngeen xam ne suñu mébét la mais am na blocage yu ko téye lii rek lañ ne woon dinañ ko wax di gërëm ñi fi ñëw ñëpp di gërëm euh, vraiment suñu imaam yi di dellu si waat